dama ko yónnee service su ñan ci ñu yor jumaa ñu visionné ko ñu ne ma du dëgg nga xam ne kon du dëgg léegi kon manipulation la léegi nag nga soog a nag qualifier les faits muy euh, li ñu njëkk wax mooy barabu Serigne Touba du ñu ko ubbil sax góor gudul nituk diine ku ñu xam ku ñu xam nit ku mag. bu ñu xam loo def ci lislaam waxuma nag jigéen waxuma laa nag jigéen doo xam ne yorootul jullit xaw ma ndax jullit la xaw ma du jullit kon loolu tooñ mënu ko paase euh, trafic d'influence la abus la manipulation la parce que ban intérêt nga am ñëw ba ci jumaay Sëñ Tuubaa naan dañu ko ubbil te ubbiluñ la ko parce que amoo benn valeur religieuse amoo benn valeur morale bu tax nga naan dañ ma ubbil jumaay Sëñ Tuubaa lan nga ci jublu nga tooñ toute une tooñ lu toll ni mouridisme tooñ lislaam parce que jumaa bërëbu yàlla la daalika wa man yu'azzim sha'a'ira llaahi fa innaha min taqwal quluub nga ñëw agressé loolu lépp di tam fou de tout te dañ doon ay sax ko koy taxaw di jël ay image ak di filmer ci biir jumaa ji nga ñëw def ko ba noppi dañ ma ubbi la par rapport Sëñ Tuubaa ànd ak sa complice bu lay fenal naan dañ la woo nga jóge fi nga nekk ñëw ci biir barab bi lan lan lay woowee yow yaay kan day jigéen nga xëpp mboolem charte lislaam ci loolu ak mboolem charte worma yi nga xam ne si si wormaal nañ ko Serigne Touba wormaal ko jumaay Serigne Touba ji parce que non seulement Serigne Touba kese kese mais jumaa la bërëbu jaamukaay yàlla bu toll ne jumaay Touba yaakaar naa ne loolu jëf ju ñaaw la importance bi du nit ki parce que diw la soxlawuma ko li bëgg a wax rek mooy jëf ji du dëgg parce que balaa ëllëg dëkkandoo yi. wala ñu bokkalul diine wala ñu bokkal pas-pas kenn xam ne loolu jaaduwut loolu def ñoom jiixi jaaxal seytaane loolu lay dox ci jiixi jaaxal lay dox seytaane ci lëndëmal xel lay dox seytaane ci manipulation lay dox kon kii seytaane pire la seytaane rajim la loolu moo wax du dëgg day fen ba ci toppaatit mooy usurpation la ba ci toppaatit mooy trafic d'influence la ba ci toppaatit mooy tooñ la te yaakaar naa ne yooyu yëpp Euh, euh, kilifteef gi yor jumaa ji dina ci def ndigal la ca war elle est elle est elle mu ñëwaat ci wet li mu doon wax xam ne li mu wax du dëkk loolu mooy li ci njëkk wax bàyyi nag ñor liggéey boobu ñu ngi ciy réunir def naa dinañ leen dégg ñoom tam te dinañ def liggéey bi la ci war ndax sëñ Tuubaa ni mu toll ak ni jumaay Tuubaa toll du rek bërëb boo xam ne jigéen du jóge fële rek di seytaane rek ñëw taxaw ne man dañ maa def lii dañ maa def lii te du dëgg ngir indi ay jiix jaaxa ci xolu ñu gëm ak ñu ñu bokkal diine ak ak ñi nga xam ne si ay mbokki taalibe te nekkuñu fi te xamuñu na lool du dëkk